asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 14 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglikaay bi nag tey fa mu xëy ñëw ci combat Tafatine ak Boy Niang daal la xëy ñëw mu mel ni ki combat nag combat boobu daal fi mu nekk nii daa mel ni daal coow da caa tàbbeeti muy diggante Tafatine bu bool mbooloo ak Boy Niang bu Pikine coow la nag nañ fenn la amee ci waa kër Tafatine ak promoteur ba di Pape Thialis Faye ndax yëglikaay ba ak ñu xamal ne daal ña nga xam ne jege nañ Tafatine di lu leer ay sources yu wóor ca yëglekaay ba wax maanaam daal ñoom jàpp nañ ne ki nga xam ne moo di seen diggante ak Boy Niang moom si yàqu la gën a jege ni defaru la ko waral nag danañ ci wàllu boppam mooy la ñu diggantewoon promoteur ba maanaam daal da koo defagul te boobu ba tey xaar ba xàddi na ba ñoom jàpp nañ ne sax respecté maanaam promoteur bi defu leen ko moo tax nag la doon xaar daal daa mel ñu nga bëgg a te ñoom yëg nañ ne Boy Niang jox nañ ko la nga xam ne nii daal a di wax di xam le na daal combat ba moom mu yàqu la gën a jege ni mu defaroo jamono jooja nag Elas Thioune ma yor Tapha Tine moom di ab ensemble signé contrat ya nekk ca Italie moom daal tontu na leen nee na ñoom la ñuy wax ñoom la engagé waaye moom la mu signé Pape Thialis Faye xam na ko te ñoom ñi di wax fekkiwuñu ba ñuy signé la ñu signé kon li leen war daal na ñu toog te noppi jàpp seen bopp moom daal Elas Thioune nee na ñoom signé leen contrat te combat bi dañ koy bëri 2021 bu fekkente ne Covid 19 bi na fi waaye daal lam leen xamal daal nee na ñoom nañu bàyyi loolu ñuy wax te wax leneen ndax moom la xew moo ko xewal moo ko mbër maa këm ko séqaloon loolu la ki nga xam ne moo di elas cun tontu ñoo ñu ngay xam ne ñu ngay wax ne combat ba yàqu la gën a jege beneen combat boo xam ne nii moom boo bëggee dégg dëgg daa mel ni itam am na ay mbir yu ñu ca doon wax naan daal Luc Nicolaï dèjà bëgg a teg loxo muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux mel ni kii nag coow loola moom am na koo xam ne xëy na wax ca muy raay ba nga xam ne nag moom moo yore wàllum Luc Nicolaï en ko raay ne na day na leer nañ ne na daal li am ba des mooy kii di Luc Nicolaï tal na leneen lu dul ay nangu combat Balla Gaye ak ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux ñu ne ko lu mu tal mu ne la mu tal lenn la lenn daal la tal mooy Ama Baldé ak ka nga xam ne moo di Modou Lo mooy suñu priorité te itam ca loola ca la nu nekk fi mu nekk nii loolu mooy li nga xam ne daal mooy waxi ka nga xam ne moo di raay ba bokk ca lig Nicolas Enko maanaam daal kon Gaston Mbengue foofu moom bu ko yeboo bu tëddee na nelaw Gaston itam daa mel ni day même bu nelawee itam yeewu na ba tontu la mu xam ne nag nee na moom daal wax jooju du ci nekk sax di ci wax nee na moom daal fi mu nekk nii bu tëddee day ba yandoor maanaam mu ngi tranquille jàpp boppam jàpp la mu def ne daal mu nga téem kombaam kon joojo wax Gaston daal nee na moom du ca nekk tey suba di ca wax leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci wala keneen koo xam ne nii xëy na di wax muy ka nga xam ne moo di béy di sëy moom nag nañ ku daan ànd ak Mor Fadam la ancien compagnon daal la woon Mor Fadam bu Géejawaay moom nag la mu xëy di wax la daal li mu xam ne daal jàpp na ne làmb daal maanaam daal àndul ak ay huit la yu bëri yoo xam ne yu bëree bëri la daal jàpp na ne àndul ak moom ak ay subvention yoo xam ne itam ñëw na ca yoo xam ne wax na ko wala jëm ci Mor Fadam ak ka nga xam ne mooy diggante seen plein ba di guy gi ak rëg-rëg moom jàpp na ne daal eh, guy gi daa mel ne daal war na mën a sax am ki nga xam ne nii mooy rëg-rëg pour daan ko jàpp na ne daal ndam war na ko fa am na tey seq ak waxtaan yëglikaay boobu nga xam ne moo di sunu làmb soo technique moom may laaj CNG ba nag la mu xëy di waxaat daal daa mel ni Alioune Sarr la xëy di défendre ndax nag jàpp na moom res na daal ñu jox ko cër maanaam considéré ko nangul ko ay mbaax mbaaxam ak ya nga xam ne nii def na ko soo technique loolu la xëy tey di ko wax ñii moom bañ defee ba pare résultat yi ñu doon defee nag génn na muy waa parcelle mbooloo ak six victoire ak quatre défaites yëglikaay baa wax nu ci seen tête de file ba moom di Moussa ba tey mu nga toog yëglikaay bi jàpp na ne Moussa daal mu nga abonné absent maanaam daal toog bañ a bëre fële Moussa Dioum abonné yandaa moom mu mel ni ki làmb ji sax moo ko ñàkk ndax moom itam mu nga États-Unis jàpp boppam am na ca xale yoo xam ne nag moom ñu ngi ci làmb ji waaye wàcc ñu bëre muy Obali Timtimol Odinga ak Moussa Dioum numéro 2 ñoom itam ñu ngi ca tuus ba combat la ñu jotu la am ka nga xam ne nag moom am na combat saa su ne di boppam muy Fra yëglekaay bi ñëw na ci moom maanaam moom daal toujours impérial la ko sunu làmb tudde saa su ne mu ngay wane boppam far bu jar serpent bi nga xam ne mooy bu Cambérène ñoom tamit yëglekaay bi ñëw na ci ñoom ak seeni def-def maam lees nag ma leen di tàggat daal la mu xëy xamle na ne li a ba daal beneen saison bu yàlla li ñu def danañ ko gën a leeral gën koo teg ci aw yoon ngir mbir ya gën a mën a baax loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey xamal leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ca muy combat boo xam ne daal taxaw na te jamaykee moo ko taxawal lanu sunu lam wax ca tuus muy diggante booy fay ma ngeen xam mu nekk léegi ca garga mboose ca dóor dóoraat ak ki nga xam ne mooy Cobra bu Pikine mbooloo mel ni ki daal yëglikaay wan nañ ci aw photo ki nga xam ne nii moo di booy fay ak jamaykee ñu taxaw sunu lamb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii dañ koy fekki fa nga xam ne mooy ca record record nag buñ fa demee abu nduur lañ fay fekk la tax nag moom ci mbirum Ama Baldé Modou Lô la xëy ñëwati ndax waa kër Ama wala na ca koo xam ne daal jàpp na ne Ama Baldé du wàllum technique du wàllum xam-xam woo xam ne nii war na leen cee mën a jaaxal ci bëree jamono jam waxee loolu nag am na ay boroomi xam-xam yoom ne ci làmb jay ñu ngi koy dànkaafu ne ko teengaa tey bokk na ci booy kayre booy kayre daal ne na ko teengaa tey ci wax jooju ngay wax ne na ko lambati tey Ama Baldé ku ko na la indil jafe-jafe maanaam boo ko xeebee daal mën naa duggee mën na koo taal lakk ko Omar Diagne tamit OMS di directeur technique régional de Dakar moom itam xam ne ne daal ki nga xam ne nii day dootu ko fàtte wala ñu xeeble ko ko ba fa tamit di entraîneur nekk ca Fatick lu mel noonu la xëy wax ne na Ama actuellement bokk na ci ñi nga xam ne ñoom mën ci làmb ji maanaam mairie daal Ama Baldé ci la bokk leneen loo xam ne ni wala keneen koo xam ne ni moom arabas lañ koy wax ca làmbi simple ja moom juróomi a nga xam ne nii moom la jot a gañe ñàkk bërin Dakar gi tamit daa mel ni daal ñëw na ca li nga xam ne nii moo tax ba naratu fay bëri waaye leneen loo xam ne wax na ko mooy final ba nga xam ne gañe na ko dafa ki nga xam ne nii moom mooy baabooy ca sookoon maanaam daal leneen loolu moom lu ko marqué marqué la loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey wax moom record leneen loo xam ne nii mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di fi nga xam ne mooy record muy Bombardier ba tey maanaam ba mu ñëwee ba tey ñu déclaré combat ak Eumeu Sène mu ngay xaar xaalis ba tey daal ba démb ci dimanche ji yëglikaay bi da ko a xëy ñëw wax nu ko garga moo seg ko record ba tey mu mel ni ki tamit lañ doon wax ba tey ci Gris Bordeaux ak Balla Gaye record tamit mu ba des ne ñoo di waa Fass daal jàpp nañ jooju wax moom taxawul wala boog ñoom waa kër Luc Nicolaï yu mel ni ki ba tey record tamit wala sunu làmb wala fu mu ci mën a doon ñëw nañ tey di jaale ka nga xam ne moo di Max Margan mi nga xam ne dafa ñàkk la nga xam ne moo di rakkam bu jigéen wala sëram wala magam loo ci mën a dégg daal ñàkk nag jigéenam bu ñuy wax pendang mbeng moom nag Père Max looloo ko arrivé ci weekend bi nga xam ne moom la ñu génn moo tax nu ngi ko koy jaal di ñaan yàlla soxna soosu yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko te ko aljana yàgg maar maa ngi lay fay ndeyu kuma fa di la delloo ziar di nuyu internet ñu suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën a nekk sa àddina bi ñu leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen ñu ñoo nag si jàngatu arène bi tey nag ñu commencé ak sunu laam sunu laam dafa xëy nag euh, dalal combat yi nga xam ne mooy Tapha ak euh, Boy Niang waa Bawol nag ñoom tey génn yu neen daal ñu ngi def araftu daal ki nga xam ne mooy Pape Thialis Faye nee na combat bi daal su fekkee ñoom seen mbër joxul jotul avance nag ñoom nag daañu jël nag yi euh, nga xam ne mooy Tapha Tine jébbal ko beneen promoteur ki nga xam ne mooy El Hadj Thioune di agent wu Tapha Tine nag moom weddi na loolu nee na ñoom ñooñ di wax nag bu ñuy joxe avance ak bu ñuy joxe bu ñuy signé contrat bu ñuy négocier combat bi ñoom ñëpp kenn teewu fa woon comme ñoom nañu noppi rek toog te xam ni Tapha Tine dina bëri ak ki nga xam ne mooy Pape Thialis Faye waaw muy loo xam ne daal tey lañ ko gis ci yëglekaay bi ah li ci am solo nag mooy ñi nga xam ne comme li yëglekaay bi wax. sursam la am bu ko xamal ne ko combat bi ñoom ba tey ñu ngi xaar la ñu waxantoon promoteur bi dafagu ko te loolu comme ne nañ am na wër bi ñoom mënatuñoo xaar ndax dañ jàpp bi ñoom la ñu na ñoom ñu menace ne que lay engagé parce que ku ne la muy wax lu mu ca maîtriser moom moo yor mook tafaatin ak promoteur ba xam ne la ñu te tafaatin dina bëreel ki nga xam ne moo di Pape Thialis Faye wax jooju nag suñ ko déggee man wax jaratul commentaire ndax wax ju ferenku laay la ba pare lañ ci mën a tax nag mooy ñun ñaan ci yàlla yàlla def promoteur bi déclaré combat bi ba ñëpp dégg ko muy Pape Thialis Faye yàlla na ko réussir ak beneen promoteur bi la nga sumb parce que li ci am solo rek mooy nit ku mu mën a doon ci àddina lépp nga fexe muy tege ci aw yoon et puis nga fexe maanaam la ngeen cay waxante nga di ko jéem a respecté ci sa kéemtalaal kàttan parce que loolu tamit dina taxa diggante neex wala mu ratax. Mm. Babacar nag su jógee ci ci combat boobu noonu nag ki nga xam ne mooy Rayba di coordinateur li Nicolas Enko moom nee nag loolu amul ndax ki nga xam ne mooy li Nicolas combat bi nga mu mel ni loolu kon dégg nañ ko fi ci weekend bi ñu koy coow naan Modou Lo wala boog Gris Bordeaux Balla Gaye euh, Luc Nicolaï a ngi ci waaye man dama naan coow loolu man dama naan man duma ko gëm du ma ne amul waaye gëmuma ko parce que tax mooy dama jàpp ne combat boobu Gaston Mbengue mi nga xam ne moo ko taxawal donte ay coow dugg na ci diggante ak Gris Bordeaux yaakaaruma ne Luc Nicolaï dina jógewaat fële ca suuf ñoom fekk coow loolu mu di ko gën a yokk wala mu naan day ko ne ñaari mbër ya dara liyeete ak bi waxu raay ba boobu rek moom laay dëgg moom moom man moom moom laa moom laa jàpp te bi tamit moom laa gëm parce que euh, yaakaar naa ne tey waruñoo toll foo xam ne nii promoteur day taxawal combat ba xaalis génn wala nangam génn keneen jaar ci suuf pour ñëw di ko jéem a yàq wala nangam yaakaar naa loolu même bu amee sax du gën te loolu raay ba wax laa gëm man gëmuma wax boobu quoi wax dëgg yàlla moom daal nee na il est tranquille maanaam daal loolu tréewu ko nelaw moom daal nee na jokkoon naa ak ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye di agent wu ki nga xam ne moom mooy moom nee nañ nit de kàddoom la am coow li moom li muy bëri bëri lu may wax rek signature am na solo trop waaye kàddu pour man moo këpp doole nit ki moom boo nee waaw balaa ngay wax waaw nag na ko seet ba sa waaw maanaam maanaam la koy dindi du doon lu waaw lu yomb quoi kon defe naa Gaston loolu mu wax ne que moom ñooñu ñu ngi toog moom it mu ngi tranquille ah mooy li ma wax sànq rek ko yaakaar naa daal euh, ñu ngi ñaan daal promoteur yi sumb ay combat yépp ba déclaré ko ba ñu dégg ko yàlla nañ ko tëgg keneen itam tëgg leen ndax jarul booxante làmb ci yaatu na te tey da ngay tëg giri bàlla ñu bëre mu passé la war a amaat beneen combat giri war ko amaat booy ñaa war ko amaat tafatin war ko amaat te bu keroogee journée yi du ñu jeex kon li ñu ñaan yàlla di fekkee di tal rek quoi ñi nga xam ne waa am ne muy bilan boo xam ne daal maanaam boo xoolee tuuti combat défaite yeeg victoire yi tolloo mais nag tane na tuuti waaye li ci li ci fiñ ci fiñ ciy taxaw mooy maanaam bëriwuñu bariwuñu ay combat boo xoolee di combat lañ jot a bëri alors nag li ko waral mooy saison bi fi mu taxawee la ak nangam sangam mais par seen boolo yaakaar naa ne at yi yëpp mu ngi marqué empreinte si làmb ji chaque année mais ren nag gis nañ ne affaire yi moom doxul en 100 pour cent mais nag loolu mooy sport quoi. ki nga xam ne moom yaakaar naa Alioune si fi nekkee boobu léegi euh, dafa mérité respect mooy ki nga xam ne mooy Lamine Lamine Diong. soo technique. jeu technique moom daa dafa mérité respect ak considération. waaw respect considération dama naan ñëpp a ko mérité nit ci boppam la ñu war a jox respect war ko jox considération parce que jëmmu doomu aadama moom a fort Alioune Sarr nag comme li mu wax bu fekkee dafa ñëw tey Alioune Sarr en tant que Alioune Sarr di nit en tant que Alioune di kilifa. en tant que Alioune Sarr tamit yore ay responsabilité ci réew mi rawatina jiite sa defe naa ne respecté ko moom moom la ku nekk war a def terewul nag nga wax ko sa xalaat. yaa ngi dégg nit ki moom li ngay def maanaam nit ki def na benn liggéey nga gis ni fii doxul fële moo dox am nga droit apprécier la dox la doxul tamit am nga droit kat signaler ko ko ne ko lii doxul lii doxul waaye doo ko ko wax ci acharnement doo ko ko wax ci nañ ngeen jégal ma si baat bi maanaam si reewante wala nangam ko mais da nga ko koy wax rek ku ci ngir bëgg la muy def mu améliorer ko ngir bëgg mu di mu mu yokk la muy def même bu fekkee yow da nga pare sax ko wala comme tey ni ko gisee ci politique bi nga xam ne politiciens bu ñu bu ñu faree dañuy taggante mais bés boo gisee ne seen diggante yàqu na ku ne taxaw fe di sànni sa moroom xeer di ko wax ju ñaaw yooyu mooy yoo xam ne daal yu jaram moytu la pour man nit ki boo koy critiquer wala nga koy nangam war nga ko def daal lu objectif mais bañ ko def nii rek hasardement dama ko contre wala dama jóge fi rek te yow amuloo benn argument lu dul da ngay wax ni rek pour lu la neex ah, ki nga xam ne mooy ndes sunu lamb ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mënooy ànd ak ki nga xam ne moom daa nee daal d'accord si nga xam ne

àddina bi yëpp corona bi téye lu activité yu baree baree bëri ñu delluwaat tey gisaat ne activités yi ñu ngi reprendre mais ci beneen façon maanaam tey ay huis clos muy football bi muy basket bi ak yeneen ak yeneen ci raw rawatina si réew tubaab bi fii nag ñun ñu am sunu lamb am sunu sport yeneen muy football ak basket ak lépp ñu gis ne loolu boobu ba tey mu ngi taxaw ah xëy na moo tax nit ñi avancé ne est-ce que duñ ci jël ay solution parce que dégg nañ ci micro war nañoo jéem wut ay solution solution nag bu fekkente ne li daa continuer moom moom balaa neex rek supporters yi toog ak amateurs yi ñëpp ñëw sangu ba set toog loolu moom la soxla ci làmb loolu nag li koy maye mooy jàmm moo tax nag jàmm lu ko waaye di jënde jar na ko yàlla nañu yàlla defal jàmm dàq corona bi ba nga xam ne dañ mën a reprendre làmb jeeg football beeg basket baak volley ba ñëpp mën ko di teewaat quoi parce que loolu actuellement moo jarañaan waaye nag mbir olof a ko wax taal bu tëye tàkk fu ne lañ koy uppee nag waaw Euh, waa kër Modou Lo doon wax naan ki nga xam ne mooy Ama Baldé amul technique amul tactique pour mun a euh, jaaxal ki nga xam ne mooy Modou Lo ñoom nag journal bi si xalima abonu jël na nag ay technicien laaj seen xalaat nee nañu est-ce que tey ji si nag ki nga xam ni mooy Ama Baldé maanaam daal da ko xaw a soofantal ki nga xam ne mooy boy boykere nee na Ama Baldé waru euh, Ama Baldé n'est pas à sous-estimer ne Ama Baldé du ku ñuy xeeb kenn kenn waru région de Dakar nee na pour créer la surprise ki nga xam ne mooy Bafa Gueye coach région de Fatick nee na Ama waaw li am solo daal mooy ña nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne Ama Baldé ci technique wala ci xam-xam mënu leen jaaxal wala mënu jaaxal Modou Lo di staffu ah pour man dañ koy wax parce que làmb am na bataille de communication da ciy am maanaam ay waxante man pour man foofa la ñuy war a teg wax ji waaye pour man du nekk loo xam ne lu ñuy gëm la ndax li tax du nekk lu ñuy gëm boobu ba tey bañ ne combat bi am na Modou ku ne xam ne xamaguñu ban date lay bëri mais à tout ñu ngi gis ko ci ay vidéo muy entraîné kon dama gëm ne même bu fekkee ñoo ngay wax loola Modou moom xam naa ne loola du doon lu koy engagé Modou moom jàpp naa ne ci niñ ko xamee ci ko gisee defe ne ku kuy jox adversaire cër la te kuy loolu Boy Kayre wax mu mel ni kon waxu Boy Kayre boobu ah tey rek liñ ci mën a jàngate moom la Omes Diagne wax moom la Bafa Gueye wax kon Ama Baldé daal boo bëggee dëgg-dëgg ku ko am ci làmb am nga adversaire de taille te loolu ba fa wax ne tey jàq bëri ci làmb la bokk wax dëgg yàlla dee ko mën a weddi ndax lu mu wane la parce que yàggul ci làmb ndey ku ma ku ne xam na ne mbër mu osé la te nit nag la muy def bu ca osé am ca fit ñeme am kàttan macha allah defe naa ne kon kooku du ku nuy xepp te la ko tax a jël Modou Lo pour man am na fu mu ko teg jëlu ko nii nii nii rek am na lu fu mu ko teg ndax lan mooy bëgg daan bëgg a nekk roi des arènes te yàgg na ne moom même bu yoroon beeke sax ah bu dajeeg Modou Lo ci mbedd mi dina ko soob. kon defe naa kooku moom yaakaar naa ne nag ku ku ñu war a jox cër la moo di nekk na mbër moo xam ne nii moom li ma la waxoon rek du koo xam ne ci li ñu ko giseel kuy xeeb adversaire wala nangam sax parce que ko ci làmb ci li pour nga gis mbër bu gën a sérieux Modou moom loolu defe naa ne du yomb a gis ndax li tax moo ko may tey pour man fi mu yegg si tey mu yegg ba nekk roi des arènes waaw. Euh, waa loolu daal loolu ab wax defe naa ne mooy wax ji defe naa ne loolu moom ni mu amul de comme li ma la waxoon sànq rek waaye foog ma ne daal lu war a mën a nekk la parce que itam lig defe naa ne combat bi mu engagé defe naa ne tey. waaw dox da waaw nit ku ne am na loo xam ne nii moom ngay tal te noonu lu ko raay ba waxee sunu làmb ñu ñëwaat record gisaat waa Fass wax ko pour man wax ji daal daje rek waaw. trop mbirum coowu avance ginnaaw nag est-ce que du corona bi li lépp moom la xam nga corona bi itam billaay dafa dafa do moom daal xam naa ne ay mbiram yéemi na parce que yëpp da ngay kon daal li ñaan daal mooy loolu am Bombardier yàlla nañ ko jox xaalis mu encaissé Garga encaissé. yaa ngi dégg Moussa Kële nu mu tuddati Sa Thiès encaissé ñëpp ñëpp encaissé waaye <laughs> ñëpp war a encaissé parce que itam ah doy na waar doy na waar. mooy encaisse nag lu nga xam ne mooy euh, xam ne moom moo encaisse am na 5 drapeaux ak 1 million 910 mille moom nag mi ngi expliqué nag si journal bi lan moom mooy Dakar waaw muy loo xam ne daal somme bu takku la ci fi saison bi commencé fi mu yem arobas nag di xale boo xam ne mu ngi ci liste simple bi bopp ba tey di wane boppam bokk na ci ñoo xam ne ku ñu war a sóoraale la mu ngi ñëw te loolu mu jot a gagné itam wax dëgg yàlla 6 de 5 drapeaux du moins ah voilà 5 drapeaux 1 million 910 mille presque 2 ab liggéey la te gis nga saison fa mu taxawee kon ñu koy féliciter rek di ko wax ne nag ah moom moo xam li tax dootul bëre Dakar waaye Dakar tam na jàpp ne mise yu mag dafay am de te gagné mise Dakar neex na ba dee ndey kumba 14 septembre defe naa mooy génn àdduna wu maam da baax maam alaaji Malick waa maam Abdou Aziz voilà da baax waaw bàyyu Maodo si uh-huh. bàyyi sëñ mbay si Abdou bàyyu maam Alpha si bàyyi soxna Sofiatou si da baax daa baax kooku mooy da baax mbaax rek a am solo boo gisee tey àddina bi yëpp jox ko cër ñëpp fonk ko mbaax gi mu nekk woon ci àddina bi ak digle yi mu daan digal nit ñi lu baax ak wa mooy mbaax boo boo baaxul mënoo ñaw ku baaxul doo dox ci mbaax boo déggee ñu nit baax na du yàq ak mbokk du wax lu ñaaw du fekkee fu ñu koy defee te du jëw du rambaaj du nekk tamit seytaane moo tax ñu ne da baax daa baax ku ne gisoon na ni mu meloon ak këru diine yi muy njaasaan muy Yof Laayeen muy ba ci jàngu ba Touba waxaale wuñ ko Touba moom defe naa ne moom ak diggante Touba ak maam ab dumburo euh, kum so euh, ak kii la suukara kum soow la da ngay boole naan maamal la njëriñ boo ko tuuree gaañ sa bopp. yaa ngi dégg lu ma la kon kooku defe naa tey bu ñuy fàttaliku génn àddina mu génnoon 97 àddina nañu ñaan yàlla taaf ñu si barkeem yàlla yokk ay leeram biir bàmmeelam xam nga kon na kilifa goo xam ne daal ku amoon solo la ci réew mi te ba tey solo saa ngi gën a continuer ndax saa yow dégloo ay waxam ndey ko mu indiwaat la kon ñu ngi ciy profito di ci nuyu suñu mbokk jullit yëpp rawatina tamit taalibe seex yi ku mel ni Abdou Aziz Ndiaye ñu ngi ko ci ziar Aziz Ale ak ñoom Baye Ndiaye ñoom ñëpp ak yow mii tamit waaw Aïssa Faye taalibe seex yëpp ah Modou Lo tamit le roi des arènes ci la bokk ñoom Gris Bordeaux Yaxya Diop Yékini képp kuy taalibe Seex parce que mu limee dinaa juum taalibe Seex yi bëri na bëri nañ ci ñun parce que Sénégal li may wax rek benn bopp la kenn mënu koo xarañaar réew mi ñoo ko bokk muy maam Alaaji Malick maam Bamba maam Baye Niass maam max Mahdi maam Bu Kunta waa jàngu ba sunum réew noonu lañ ko tëggee yàlla nañ ko yàlla sàmmal mbokk gi gën a dëgër xam nga ndey kumba maam kenn la daal Tiwaawoon non loolu loolu maanaam loolu moom loo non loolu mbiru Sénégal la hmm. ndax jumaa jumaay Tiwaawoon jumaa ju mag ja euh, wax ma ko 1979 lañ commencé woon liggéey ba ba tey mu des kon ñu ngi ñaan yàlla rek comme noonu ñu ko lancé liggéey bi tey lañ ko war a lancé ci Tiwaawoon ah, ñu ngi ci waxuñu man du ma ne taalibe sax dama naan sénégale yi laay wax yaa ngi dégg ku ci ne na nga ñëw indi ci sa participation ñu def ko parce que néegu yàlla la néeg la kër foo nga xam ne la fa la maam Maodo tëdd Serigne kër si ki ma sa sama turandoo tëdd fa ñëpp tëdd fa kilifa yu baax yëpp ne fa kon defe naa fa fa moom dugal fa lebal yàlla te yàlla xam nga ne boo ko lebalee boo ko lebalee ker guddi la lay fay nday Kumba Fall te guddi waaw da ngay lëmbi def lu la neex jaale nag sunu xarit collaborateur bi nga xam ne mooy le tournée Max Mbargane nga xam ni moom moo perte bi nga xam ne mooy rakam wala magam bu jigéen ñu koy euh, ko yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana muy sunu yaay jooju wala sunu tànta di sunu magu di suñu euh, di di di rakku Père Max Mbargane wala magam bu jigéen loo ci mën a dégg daal ab jigéenam la. Mm. ah di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana di ko jaale Père Max di wax ne Père Max moom ñun ñi tey suñu yorum micro di wax am na ci lu mu ci participé kon moom defe naa lu ko dal rek muy muy bànneex ak xar dañ koy bokk ak moom parce que mag mu baax la te itam ku ñu ñaanal yàlla mu yàgg ci réew mi Père Max

loolu da la ma wax ne na bu ma la laalatee sax mu am ak man problème Père Ndongo Cissé maa ngi koy nuyu di nuyu Jibal Touré waaw Jibal Touré ah mën naa la may parce que sa sa sa càmmeñ laa waaw kon war naa la mën a maye bu fekkee gis naa ku la bëgg waaw waaw man loolu du dara yaa ma mag mais góor la di nuyu gambie yëpp ñoom Jibal Touré ñoom Paate Gambia ak képp kuy doomu Gambi maa ngi lay bëgg di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Saliou Khoule sama xarit boobu sama soppe boobu di ko wax mention spéciale waaw non parce que non Saliou moom sama nit la Saliou la ñu seq dépassé na xam mbirum xaaraan reer la nga gisa ci gën a tuuti de di nuyu ka nga xam ne nii moom la waaw waaw noo xam nga Saliou suñu diggante waaw li ma lay wax rek yàlla na ko yàlla defal gudd fan ak wér gi yaram yaa ngi dégg di nuyu Paco wan borom dibi téri ba Paco la muy lak ci yàpp nday ku ma faw nga ñam ko mais jib seen mention spéciale gis nga fi mu génn teeg man tey kenn du jib seen di nuyu waa Petersen baaba kër bu móodu la ma du ma ko fàtte ñoom Cheikh Lambaay ak Moussa bu Zos waaye loo ci mën a dégg daal Paco wan Saliou Khoule Paco wan ay mbiram doy na waar yàgg maar xam na li may wax kenn du Paco wan c'est le meilleur dibi téri kat au niveau Sénégal wala sax mu ne ah, mondial waaye tëjal yow yow yaay tëj wala ma tëj